mbokki internetu Dakar Actu euh, ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci euh, Njaga Ñaaw commune Njaga Ñaaw Njaga Ñaaw nag xam naa ne 2020 bi siiw na lool ndax xam nañ ne euh, pareeguñu ci suufas ndeng leer beneen problème a ngi nii muy problème mu yoonu Njaga Ñaaw Njaga Ñaaw nag fan yii yëpp ñu ngi yuuxu li ko indi moom mooy seen yoon bi nga xam ne benn buntu la te baaxatul fan yii yëpp oto mënul dugg mënul génn ak li nga xam ne moom mooy nawet bi moo tax dakaar ak Dakaractu ñëw fi tey pour ànd ak waa ñaaw pour xool euh, li nga xam ne ni moom mooy yoon bi gannaaw bi ñu yuuxoo yuuxuwaat yuuxuwaat kon ñu ànd ak waa ñaaw xool situation bi nga xam ne moom moo fi am kenn mënul dem kenn mënul dikk. so solo yu sorce bii daal mooy sabab bi mooy suñu yoon bii nga xamante ne. am nañ ci njàqare bu rëy rëy rëy rëy mu nekk loo xam ne lu métti métti métti la population Njagañaaw yëpp ndax itam yaakaaroon nañu balaa ñuy yëg si fii ci jamono yoon bi waxatuñu ay waxam mais gis nañu depuis euh, yoon gi bu mu amee ay jafe-jafe boobu ba tey ñu ngi ciy wax di ci dox di ci def mais ba tey gëm naa ne mel nañu état bu Sénégal dégguñu te loolu mooy suñu njàqare ndax lu tax mooy suñu njàqare dañu yaakaar ne ñun ci Sénégal lañu bokk dañu yaakaar ne ñun ay citoyen lañu kon am nañu yaakaar tey yoon gii koom-koom la ci Euh, département de Mbour mais rawatina commune ñaaw ndax yaakaar naa yoon bi bu meloon nu mu war a mel tey nit mën naa jóge fii dem ba Xombol nit mën naa jóge fii dem ba Touba ak feneen ak feneen mais yoon bi wóor na ma wóor yàlla tey bu tawee kenn du dem kenn du dikk te dañoo pour nga dem mbuur il faut nga jaar yoonu ñaaw gi pour nga ñëw Ndiaganiao il faut nga jaar euh, yoonu sa njëriñ gii te yoon bi gis nañu. président bu muy lancé autoroute à bi lu ñuy defoon suñu yaakaar ci waxam am nañu yaakaar ne autoroute à péage bi buñ ko bu koy lancé moom Sénégal yëpp dégg nañu àddina yëpp dégg nañu mën a yoonu Ndiaganiao Sandiara dinañ ko defar te boobu ba tey xaar nañu ba xaddi te gisuñu lenn lu ci changé ñuy ñaan autorité yi ñu jàppale ñu jàppale seen bopp parce que ñun itam ay citoyen ay citoyen la ñu nekk ci réew mi te yaakaar nañu euh, war nañu mën a am tey loo xam ne fii ñuy xaar euh, état bi ñu ñu xaare du fii nañu defaral suñu yoon bi ndax yoon bi bu def bu baaxee mooy koom-koomu ñaaw mooy koom-koomu département bi mooy koom-koomu ñëpp mais yoon gi fu mu taxaw nii département Mbour fu mu taxawee nii dafa métti ñëpp askanu ñaaw ñëpp wax nañ ci guddi wax nañ ci bëccëg mais gisuñu ci lenn lu ci saafara ñaareel gi suñu ministère gi bokk ci département bi yaakaar naa ne ak poste bu mu occupé tey ci gouvernement bi war li ñuy sonn tey ci yoon bi waroon na ko mën a métti mbaa mu def ko xalaat mu man cee def lu mu war a def ba du ñu agsi fii ñu agsi kon ñu ngi euh, jox euh, président appel suñu yoon bi bëgg nañu mu ay jafe-jafe la ci population Ndiaganiao jafe-jafe la ci askanu ñaaw vraiment bu ñu sañoon daal président dugal ci loxoom man ñoo defaral yoon bi nu mu gën a gaawee lii daal mooy suñu jafe-jafe te mooy jafe-jafe bu ëpp ci jafe-jafe ñaaw tey. cri de bi lenn la mooy suñu yoon bi yoon bi nga xamante ne gis ngeen jafe-jafe yi du ñoo ngi koy dund boobu ba tey le président des chefs de village wax na ko def nañ ci lu ne alerte nañ def nañ ci ay rencontre le président de la république son excellence monsieur Macky Sall. def ñu ci ay dige ça fait un an bu mu ko waxee parce que waxoon nañu 2019 nañ defar yoonu Ndiaganiao jusqu'à président gisuñu dara askanu Ndiaganiao sonn na fu mu toll nii ñu bëggoon encore une fois de plus alerte waat le président de la république mu xam ne Ndiaganiao ci Sénégal la bokk te fu mu nekk nii jàpp nañ ñoo ngi ci feebar ñoo ngi ci ab mbas mais nag ñun lu ñuy dund période yu ñu toll nii moo raw coronavirus ñu bëgg ñu gëstuwaat askanu Ndiaganiao parce que fu mu nekk nii taw bi moo wàccul normal mais taw bi su wàccee comme ni ko sama papa waxee kenn dootul dugg kenn dootul génn Ndiaganiao te lii mooy suñu yoon principal yoon boo xamante ne moo yor kom koom-koomu Ndiaganiao te gis nañ fan yii pour nga évacuer malade euh, benn malade ça cause énormément de problème moo tax ñu ci ñaaxaat les autorités compétentes ñu gëstu waa Ndiaganiao parce que sono nañ sono nañ ñoo ngi ci alerté nag euh, opinion nationale ak opinion internationale balaa leneen di xew balaa lambaaj di ñaaw parce que trop c'est trop ñun sonn nañ nag sonn nañ ci xaar bi sonn nañ di dëkku yoon bi yoon bi sonal nañu trop sonal nañu suñu koom-koom nag mu ngi nax saay Dakaractu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yëf yi gën a yaatu parce que lii rek lañ soxla ci journaliste Ndiaga ñaaw nag dama yaakaar ne dañ koo déconnecté ci Sénégal man mi nga xamante ne damay def région Sénégal yëpp foo dem soo waxee Ndiaga ñaaw duñ ko ràññee te ñun ñu ngi à 80 kilomètres de l'aéroport de Diass ñu ngi à 15 kilomètres de Xombel la nationale 2 ñu ngi à 12 kilomètres nationale national 1 bi mais soo ñëwee Ndiaga Niang da ngay yaakaar ne sax Ndiaga Niang bokkul ci Sénégal chauffeur yi fi nekk yow soo demee fi mu ne nii tëdd sa kër doo nelaw da ngay fanaane xoolee ba bot set yow yaa ngi xalaat ñu yeyee la malaat parce que fii amul ambulance suñ la yeyee malade guddi fekk mu taw amoo noo def nit ñi ñooy sumeeku ñëw puus oto yi pour ñu traverser yàgg naa kaa wax président moo ñu ko na ñu xool xam ne ñaaw ci Sénégal la bokk chauffeur yi fi nekk seen oto yi mënuñoo baax foo génn paan bot bu set yaa ngi dégg nit ñaa ngi xuloo ak chauffeur yi accident yi bëri nañ ñàkk nañ fi benn jeune boo xamante ne kaar bi moo dugg ci kàmb wëlbatiku mu daanu daanu ci kaw mu gaañu te loolu nekk na naqar boo xamante ne métti nañu ba ci kanam yàlla dëgg ñu ngi xeex korona waaye yoon bi gëm naa ne moo raw corona. mbokki Dakaractu cri de cœur waa Njaga ñaaw mu ngi noonu Njaga ñaaw nag pour ñu présenter ko dañuy wax ne ci département de Mbour la bokk mu ngi composé wu 38 villages mën nañ jàpp ne environ 68 60 000 âmes. ñu ngi yeewoo ci commune bu Ndiaganiao kon nag mbir maa ngi noonu.